Sénégalais yi lay seetaan tey te xamuñu li waral manifestation bi tey ko waral benn mooy Guy Marius Sagna daa war a génn ci kaso bi li tax ñu war ko wax li tax tey waxuñu courant pour ku wax Guy Marius Sagna wax courant courant moo tax gars yi tëju ko courant dafa seer la wax nañ nañ ko wàññi gars yi jàpp ko tëj. ak ay nawleem xëy bàyyi ñëpp teeg moom kese mais loolu rafetul si réew mu mel ni Sénégal am démocratie man nag président Macky Sall waxal moom mooy moom sunu sunu sunu garant constitution moo yor ñëpp war a protéger gi may sañ citoyen la ko war a protéger warul nangu ñu koy néewal doole. voilà soo ko laagaroo ko. beneen bi mooy euh, libération Guy Marius Sagna au prix de mais leneen li ñuy romanaat muy troisième mandat yow en tant acteur politique nekk maire Grand Yoff nekk ku jege loolu Khalifa tey lan mooy sa position ci possibilité wala probabilité troisième mandat wu Macky Sall. yi dañoo neex dañoo neex a dutul xam nga lu ma wax xew ñu toll nii rapport UG rapport Cour boobu moo nekk boobu moo nekk boobu moo nekk en vogue tey moo nekk tey si scène bi c' est comme président Macky dafa gis ko épinglé moom ak ay nitam ay nitam yoo moom ñooy épinglé léegi pour mu sërëm Sénégal yi pour mu di bokk mais tey li ñu koy wax mooy IGE bi mu toppee ñoom Khalifa ak ñeneen ñooñu ñoo nañu ubbi information judiciaire dafay jël Khalifa la ràpp si kaso bi mais yéen itam naa sama conc bi bii paa na wax si Cour des comptes. li mu wax lu ci lan la si mën na na gars yi topp gars yi mais dañuy a solo ñu tamit ko ay troisième mandat day njaay ñi ñooñu dañuy tayaat ba kenn du leen déglu. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la a la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la jàppaat nañ affaire rapport bi ñu ñëw affaire troisième mandat kooku jotagul day bàyyi ba ba ba mandaam mu ñëw ne day bokk boobaa nag boobu lay jot mais nag xam li may wax duñ ko may.